kii nee na euh, oustaz su dee da nga da nga faa fase mu bañ dem am nga droit fanaan fa wala oustaz leeral na ko mën ngeen fanaan si idda bi loolu yaa waaw idda kay da ngay fanaan ak moom bokk ak moom benn lal mantu day cuuraay na mu daan cuuraayee di sol yu sew yam daan sol yu am bën bën yam daan am yu am bën bën yi di takk yam daan takk bu ko neexee am na droit sax raay jeexal question yi ngir yàlla Soda Amar nee na euh, góor bu borom góor bu jabaram dese dee ñaata temps lay toog oustaz da ngay gaawantu laaj góor bu jabaram bu jabaram gaañoo léegi léegi balaa ñu koy dugal margo ba am na droit xool keneen takk ko ci saa saasi jigéen bu jëkkëram génnee àdduna day toog 4 mois 10 jours ndax war a tënj kii nee na ndax saaga sa jabar ci biir sëy bi sëy tas na wala tasul. dégg naa ci imam eh, eh, eh, dégg naa ci Baye Sam Baye Baye Baye Sam Baye Sam Mbaye. Baye Sam Mbaye mu ni charia tas na sëy bi. maa ko dégg ci Baye Samb. kii nee na boo xuloo sa jabar da ko war a woo wala waroo ko woo. boo xuloo moom. koy woo kooku daa kooku daa rëy. saaga ba xam day saaga ba xam day tas yow dama lay jëndal séri ci indi la neexal la. tusaawiru wutul muñ. kii nee na vérifier sa téléphone jëkkër ndax baax na. baaxul dafa araam wala te jëstu su yàlla nee na bu leen yëddu. waaw waaw ma nga ca alxuraan. nee na góor yu bañ a joxe dépense nag. góor bu bañ a dépense ñàkk jom rek ak yàlla tëj see buntu wërsëg. waaye yàlla ngay wax ci suratul baqara allazina mhm. bil ghaybi wa yuqimuna salata wa yutuna zakata wa mimma razaqnahum yunfiqun yàlla nee na li ma lay wërsëgale boo ci dee dépense ma lay teral.